dafa neex nga dem toog ci télévision wax lu la saf ñu enregistré la dugal la partout comme que yow nee li nga xam dafa bari xam nga fu Macky sàll jënde li nga xamante ne mooy jet privé bi yow dañ la war a woo enquête la lii nag dañ ko war a dagg mooy dem ci télévision wax lu la saf chaîne YouTube bi invité la nga wax lu la saf te police demul enquête la laaj ñu la loolu dafa war a dagg ci dëkk bi dafa war a dagg carrément waa ji dañ ko war a dañ ko war a woo moom ak ay moromam ñeneen ak ñeneen ñoom ñëpp dañ leen war a woo enquête leen gis nga justice tant que tappewul fort du sotti il faut que nga tappe très fort su ko defee ñu xam ne ñoom li ñuy def teguñu ko fenn boo xamee dangay dem ca police ba nga yebbeeku lépp ñu enquête doxal seen liggéey waaye ni nga nekkee nii ci dëkk bi nii di rajji rajji di télé télé di wax rek ndax la ñàkk ngeen pouvoir moo ko waral <laughs> jaay nga sa ngor de danga baadoo la baadoo la kese moo la jàpp ndax bi ngay nekk ak Macky Sall la neexoon na lool nga daan sol say costume yi baax takk say lunette set wecc di xeeñ neex tey nag Macky Sall ñàkk na nga ne danga koy weer bi nga ko bi nga waroon a weer dafa yàgg bi nga waroon a wax alalu askan bi fi mu ko dugal dafa yàgg nga bàyyi ba Macky Sall dem amatu leen pouvoir amatoo xaalis ni nga daa amee xaalis léegi da nga bëgg a toog naan da yàq Macky Sall ah foo ko teg lu dul fu la neex dama ne police da laa war a woo gendarmerie da laa war a woo. comme que dangaa bëgg a yàq Macky Sall yàq ko benn yoon parce que jikkooy baadoo la ngeen yor dañ leen di tabax ba ngeen ba ngeen yëg ci kaw ngeen jékki-jékki rek ñu wàccee leen ngeen ne carrément waruñu la noo wàccee rek ngeen war a tabaxaat ba ngeen yéeg munul nekk ndax ni yàlla sàkkee dund noonu la sàkkee dee du dëgg donc nag yow fu mu toll nii jikkooy baadoo la dëgg nga yor toog ci télé bi naan waa Macky sàll am na jet privé centaine de million la ko jëndee centaine de milliards la ko jëndee dugg na fi génn na yow nag police da laa war a woo wax dëgg yàlla yow mérito di dox de police da laa war a woo loolay dëgg.